di nuyu nag bu baax Assane Mesere macha allah ci taxawaayam bu rafet ci réew mi. Ah. jërëjëf ak aussi tamit li nga xamante ni bi moom la ñuy wax euh, gis-gisam. waaw gis-gisu Assane Mesere waaw parce que gis nga son bu gis nga démb alaaji may ma alaaji kii yow bul bul bul ah. jaxase alaaji kii yow bul jaxase léegi léegi man lay xaar léegi internet yéen yéen yéen ay déglu alaaji bii di wax démb ci heure bi alaaji moo doon wax waaw démb ci heure bi démb ci heure bi <laughs> euh, juumte dafa amoon ku juuma ci diggante dafa am lu ma comprendre non dafa am lu ma comprendre toon ci Assane parce que Assane léeg-léeg da lay nëbb boppam maanaam maa ngi nuyu Idrissa Seck Assane uh-huh. léeg-léeg da lay nëbb boppam euh, nëbb gi mu lay nëbb boppam uh-huh. day tax léeg-léeg doo ko xam uh-huh. waaye bu ngeen waxtaanee rek daal di juboo waaw parce que ndeysaan ndekete ni mu defee démb bi ñu toogee waxtaan leeralal na ma bi ma leeral ma ne ko ah kon nag man li ma wax ëpp na maa ngi nuyu Idrissa Seck ma ne ko nag li ma wax ëpp na waaye wax dëgg fa yàlla gis nañ ñi daal maa ngi nuyu Bamba Fall gis nañ ñi daal ay doxalinu doxalinu Assane Mesere daal Idrissa Seck sañu ma ko waaw doo xaar bay war a nuyoo nga nuyoo yow am nga temps yow yaay séddale yow jox nga ma nuyu Idrissa Seck biirum nuyoo mu roosee nuyoo bàyyi ah oui waaye amam nuyoo doo Mesere daal macha allah gis naa daal seetlu naa ni bi ñu toogee waxtaan. waaw ma ne ko lu tax yëf yi demee nii li tax ma mer. waaw gindi na ma. gindi naa ko xamal ma ne ma li tax mu demee nii. lii laa doon préparé. moo tax tey alaaji rond-point ba tax ngay wax maanaam tey bi mu préparé. <laughs> bi mu préparé ba affaire yi kii. Hmm. dama ne ah kii nag wax dëgg fa yàlla. Hmm. kii daal kenn du moom. waaw hmm. te nag àddina noonu la. léeg-léeg day naqari léeg-léeg mu neex alaaji ki loolu Assane xamal na ma ko ne ma àddina mënta dëkk di neex bés bu set loolu mënta ne waaw donc léeg-léeg day neex léeg-léeg mu naqari maanaam ci ànd ak Assane Mesere na mm, nga ci ànd ak Mesere Assane Mesere da nga ci xam naqar di ci xam bànneex te loolu dafa baax ci doomu aadama yii waaw ñoo mën a capturer mën a denc xam nga tey wax nga lii mbokk yi ma waa d'accord léegi Euh, am na ñoo xam ne boo demee waa diglu rek waa diglu rek ah, xam nga kii du caaxaan waxtaanee moom nga xam ne du caaxaan amul daray caaxaan kat démb yaa noon di caaxaan di ko wax léegi nag internautes yi nga xam ne dañoo ñëw tey tey am ci wax jii tey waaw alaaji mi ngi sant Assane di ko gërëm mm-hmm. mi ngi koy jaajëfal mi ngi koy sant di wax ne nit ku baax ak nit ku mm-hmm. juba ngi nii mm-hmm. loolu tey mi ngi ko wax ci mi ngi ko wax tey ci onze waaw mi ngi ko wax tey ci onze heures onze léegi Modou démb onze heures onze lan moo xewoon onze heures onze daal ñëw da nga ko war a ñëw da ngay waaye tey moom. Assane da na dem si na déglu te jël micro. man man man na dem si KPE. moo di technicien caaxaan lay dund. na dem si KPE ak ak ak bitig nga daf koo teg ci mbiri caaxaan Assane sooy bu. waaye nag sooy bu dama lay gërëm yàgg nga maa wax ne ma <laughs> bàyyil waa ji ma topp ci di ngër ngëri dama si kaapee defe ne waa ji nit ku am fulla la ma defe ne mën naa koo def nit ndekete waa ji saa yu xëyee day gën a kannasu day gën a yanuy daalam man yërëm naa soxnaa ni vraiment ci taxawaay bi nga xam ne la taxaw parce que ay mbiram ah. dara ci wóorul jërëjëf jërëjëf son yi bu ci gindi gi nga ma gindi ngir ma xam nguur si ma jàkkaar eh. lool nga xam ne dundam gépp da koo jaaxaat yàlla suñu borom léegi sax day manipuler bay manipuler ay ay jumaa naan war nañu ay <laughs> <laughs> jërëjëf. waaw lii démb 11h la. xew 11h12. bàyyi nii weddiwuñu ko de weddiwuñu ko. waaye de taxaw rek wuy ma waaye indi nañ ci ay gindi. ci li nga xam ni mooy mbir mi weddiwuñu ko. waaw ni mu ko xamalee nag. waaw mën la xamalee. jërëjëf Modou jërëjëf Abdou Top jërëjëf. parce que damaa ñëw reconnaître ne. démb laa ko wax lii. waaw waaye nag bi ñu paree. ñu paree ma dafa toog mu wax ma. mën naa expliqué ma. Ah, xam nga léeg-léeg da ngay nangu lenn li parce que xam la mooy problème suñu leader yi. suñu leader yi dañuy juum te duñ ko nangu su fekkoon ngaa ñàkk a déggoog Assane mm. ah. kon boo ñëwee nga ni lii kat mais da ngaa ñëw ni ab caaxaankat la waaw nit ku rokkosu ku kat nasu la loolu laa ko jàppee woon waaw loolu la ma jàppee waaye ba ñu toogee waxtaan daf ne ma li may def hélas ma ne ko ah, mu ne ma a ah, lii kat damaa mm. bëgg yenn bés yi neex ba yegg ca taqaj taqaj yi waaye yenn bis yi nag ngir mu taqaj taqaj yi faaw yenn bis yi mu am nu mu demee ma ne ko ah loolu de yenu na maanaa mu ne ma bàyyil ba suba Mm-hmm. hélas ci ngay xam li waral mbir mi tey bi ñuy toog di ndékki macha allah so sooy gis naa la ngay xampati gaññ di forcé ah, waaye boo ñu gisee man ak Assane ak Kandji saa yu ñu xampee dóorante loxo <laughs> wane ni li ñuy lekk neex ma waaye yow nga nekk ca la nga nekkoon yow benn melo nga ñëwee sooy yow ngay ànd ànd gaaraal lii lépp li ko waral pour ñu xam ne ñuy sant Fall mbirum lekk képp la Assane day torturé alaaji lundi mardi mercredi ba jeudi bu alaaji demee ba fipp vendredi Assane indi lu neex saa daal di soppeeku nga ni Assane mardi dina ko ci dàbbaliwaat ñu xuloo waat maa leen ko wax mardi wala lundi ñoom ñaar dinañu xuloo waat nuyool nuyool boo ne yàlla mardi dinañu xuloo waat fii mardi alaaji lekk rek tax nga def lii lekk waaw lu mu bëgg ñu xuloo <laughs> doy na waar yow ay nit ñu am jàmm bu sax gën a jàmm am naa war na kontaan si jàmm jàmm da ngaa jekk ci nitu jàmm waaye léegi yaa ngi bëgg a nekk nitu ay yow say mbir jaaxal na. waaw yow fàttali la xewoon démb. lii bokkut a a a ko def. macha ngi xoolaat lu mu manipulé papa moom moom léegi moom moo jiite manipuler manipuler waaw mais mënoo manipuler internautes yi parce que ñun xam si yam ñun kenn mënuñu diaboliser bi voilà diaboliser ah, ñun dañoo jàmmoo voilà